Eh, waaw kon sëñ sëñ Bakar Ndiaye. waaw États-Unis dafa mel dugg si na. alaaji sëñ Bakar ñoo ngi lay ziar. te di jéggalu nag. ok maa ngi lay delloo ziar bu baax <laughs> Cheikh Jibril. ba ba ndogu jotagul waay nuyu. Mhm. Eh, di ziar bu baax sëñ am. sëñ Bakar tey eh, di leen di jaajëfal. dëgg la ñoo ngi sant bu baax ci jotaay bi. Mhm. te di rafetlu tey sant bu baax it li ngeen yaatal. dañu mën a bokk ak bokki taalibe bi yëpp ñu ne suñu gis-gis. Mhm. ak xëy na suñuy gëstu. Euh, ñoo ngi siyaar bu xalifa général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg ci wér mm. ak Serigne Cheikh Ahmed Sine Saliou Mbacké mboolem kilifa yëpp mm. euh, xam naa sax day mel ne li ma bëggoon wax mm. euh, yeneen ñi jotee intervenir ñoom jot ngeen cee jàll ba tax na man sax da ngeen may rek ma njëkk jàllale benn message message boo xam ne ci mboolem murit li nga xam ne bëgg neen photo bi wala boobu ñi ngi ñëw mhm. euh, euh, foog ñu am foog ñu travailler en synergie. Mhm. ñu xam ñun lii naka lañ ci sooboo. ba ñu am ci niñ ko bëggee. Mhm. Euh, ndax soo xoolee ñenn ñu bëri dañoo dugg rek di placer seen ay bit xëy na créer ay compte ba loolu moo tax ba enchère bi jëm ci kanam maanaam c'était pas du sérieux ndax soo xoolee tubaab bi di Mathieu ñi nga xam ne xëy na jot na noo jokkoo moom gis nga am na message sax boo xam ne yónnee na ko ñenn ñuy doon jot ko jokkoo moom. Mm-hmm. xëy na tas na waaye faw ñu leeral leen li mu wax. su ko mm-hmm. defee ñu jàngat si. Mm-hmm. su ko defee nag dinaa wax man sama message li ma bëgg ñenn ñu jot xam naa di ngeen may may tuuti dinaa ci tuuti rek juróomi minutes ndax damaa lu am am solo la. ndax sur le tonton dala naan bonjour. les ventes ont été fermées car il y avait trop d'en d'enchérisseurs. pas très clair apparemment. Mhm. Donc, elles de nouveau mises en vente plus tard. Mhm. Vous pouvez faire suivre sur les sur les réseaux si mhm. vous le léegi nag mooy euh, lii tamit day tax ñu xam poto bi. fi mu bàyyee ko. ak ñenn ñi nuñ ci jotee. Euh, comme ni ko soxna May ak ñeneen ñi leeralee du mbiru archive nationale. Euh, xëy na duma ma ko tuddee sax un collectionneur damaa jàpp rek ne dafa nekk ndaw boo xam ne donn na ay bagages ci askanam. comme nu muy amee ci ñun ñi ñëpp ndax soo leen fàttalikoo démb wala bërki démb bi ngeen ko ñenn ñi bi ñu koy laaj authenticité photo bi moom dafa njëkk sax dégager responsabilité am ne leen man du ma leer waaye nag maa ngi ko jëlee ci bagaasu architecte bi nga xamante ne mooy J Geoffre Momo te nga xam ne loxoom it duggoon na ci euh, tabaxub euh, jumaa njaareem mm. c'est très important mm. kon moom loolu la leeral daal di waaye man nag li dajale ci kii maa ngi njortu ne wér na. Mhm. juge offre boobu yaakaar naa ne ñenn ci ñi ko topp dem nañ ba xam ne en réalité dëgg la architecte la woon. Mhm. gis nañ koy am na ñu ko jot gis ci yenn gëstu yi ba amoon na sax projet yenn hôtel yoo xam ne. Mhm. Euh, jotoon nañ ko ko mi ngi ko bëggoon am. en 1917. Euh, xëy na après mënees na koo yaatal waaye am na yeneen mbokk taalibe ñu ko toppoon. kon kooku moom lu am la. mooy juge boobu jëm la bu am architecte la. bu nekkoon Sénégal amoon ay projet mhm. euh, ne amoon nekkoon ci ci liggéey kon métier moomu mu ne moom ci bagage kooku la ko jëlee mhm. donc loolu lu mat a bàyyee xel la mhm. dama loolu yi nag yooyu yëpp suñuy jàngat waras nañ ko mën a jël ka xam ne kon lii lu sérieux la site boobu tamit jël ko ci ñoom tamit site bu sérieux la parce que ñoom du ñuy jaay ay euh, objet de collection voilà mhm. donc mi ngi noonu. Mhm. Mhm. donc ay objet de collection lu ñuy jaay. ku nekk ci ñun xam ne lan mooy objet de collection voiture de collection day nekk mbir mu yàgg. xëy na jamono jee am ñu ko soxla. moom bi mu koy dugal man jàpp naa ne que njortul woon xamuloon ne dina ampleur bi dina fay. ndax soo xoolee nu mu ko protéger sax am naa ñuy dégg ñeen ñu wax ay croix de David ak yooyu. waaye demeewut noonu. <laughs> Euh, loolu yenn saa yi sooy dugal kii da ngay protéger seen mbir maanaam moom ci boppam sax jàpp naa ne su fekkoon dëgg-dëgg xaalis moo ko jiiteel mhm. dina amoon neneen nu mu koy protéger ba ñun liñ ci jot a ñi ci image sax mën nañ cee bañ a jot mhm. kon euh, loolu ma ne war res nag koo jàpp mhm, xam ne moom su fekkoon ñun la wala su fekkoon man la dinaa ci wane as tuut rek nga xam ne loolu dala koy jaral nga jëndal ko waaye tey soo xoolee lii sax mu jot a génne damay wax ne ndax am jaarati na sax maanaam lan lan lan lu bees luñ ciy jotaat mhm. kon lu mat a bàyyi xel la mhm. donc tey site yooyu noonu di jaay euh, objet de collection yi mhm. da ngay créer sa compte dugal sa ay euh, say information say crédit carte say banque carte bleue ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom yàgg leen di def yooyu dugal sa adresse postale bu wér dina la laaj sax di nga dem boo xam dina la laaj sa passeport wala sa benn pièce d' identification boo xam ne dinañ xam ni kii yow la yaa dëkk ci adresse bi. Mm-hmm. parce que dafa am ay contrat yoo xamante ne yow mi jaay loolu da laa lié ak site ak euh, waa Delcamp. Delcamp mm-hmm. ñu ngi nekk Belgique dëkk xaw ma Tunisie xaw ma nu mu tudd noonu. Mm-hmm. donc foof la seen bureau seen office foofu la nekk. ba tax na maa ngi soññaat sama yenn mbokk yi nga xam ne xëy na kumpa wala yooyu da leen ciy dugal rek xëy na ñuy dugg di di ay bit te mu leer leen ne. su yeggee fenn fi duñ ko am loolu dina gàllankoor parce que lii nekk na liggéey boo xam ne. Mhm. nekkatul pour kenn nit pour benn nit. wax nga léegi ne euh, Serigne Chérif mu sëñ Fallu mhm. moom la ñu jox projet musée boobu. Mhm. kon bagage su Serigne Touba tollatul foo xam ne dafa war a des ci benn Bakar Ndiaye bu ko donn ci kenn ak naan nangam sàngam maanaam yëfu ñëpp la war a doon. moo tax ma bëgg lii ñu liggéey ci ensemble. déjà moom retiré na lii dina ñëwaat. Mhm. waa Belgique am na daayira Serigne Touba bu nekk Belgique neen leen contacter. Mhm. ñoom ñu xool foofu ñi fa nekk nga xamante ne ay Belge lañu yor neen kayit ak yooyu ñi nga xamante ne ku mel ne ñenn ci ci ñun te amoon yéene jël photo bi mhm. ñu ko ak ñoom xool naka lu ñuy mobiliser benn fond bàyyi leen ñoom ñu doxal euh, enchère boobu noonu loolu moom mooy tax ba xëy na du yegg fen fi parce que dina ko dugalaat dina ko dugalaat léegi su ko dugalaate dina am fi muy tàmbale waxtee cinq euros jëm kaw donc vraiment euh, jàpp rek ne nen utiliser su nen jëfandikoo sunu xel suñu ak sunu suñu xam-xam xam ne lii suñu yëf la ñun ñëpp mhm. ñu àndandoo ci te bañ ko def yëfu kaf ak yëfu àll ak di wax ne dugal neen ko démb toll na cinquante mille euros mhm. cey sëriñ Tuubaa déedéet jarul yooyu yëpp man yaakaar naa ne <laughs> du du du du du du daal leen fexe rek ba photo bii liñ ci soxla jël ko su ko mhm. defee xëy na suñ ko jotee liggéey kat yi nga xam ne lu mel ne maam Mayram Kayre euh, ndeysaan moom borom xam-xam la lu mu wax junj doy na borom xel. Mhm. ci lay yëngu. Mhm. Euh, xëy na nag boromi xam-xam suy wax dafay am à chaque fois ay réserve parce que dafa am yu muy yu muy sóor waaye ñu koy dégg ñoo ngi koy xamal ne que xam neen fi mu jëm. lu mat a jàpp léegi fi mu toll sax nekkatuñu ay mbiru opinion xam naa ngeen baal ma rek maa ngi guddal. waaye eh, amul solo dañoo weesu dañoo weesoot yi fi mu toll ay mbiru euh, opinion hmm. opinion dëgg la baax na mooy comme tey man li ma mën a wax sama gëm-gëm ak yooyu waaye opinion ak fait dafa wute hmm. lii moom laay wax dafa dafa laaj c'est un débat très hmm. wax naa ne que est très intéressant loo xam ne waxuma sax ci gannaaw photo bi waaye war na noo mën a topp ba yeneen yi nekkaat ci biir dafa laaj ay investigation scientifique yooyu yëpp dafa dafa taxaw am na ñoo xamante ne am nañ ci xam-xam ñu ñu ñu dooleel leen ci ñoom it ñu ñu doxal liggéey boobu. Mm-hmm. su ko defee nag ginnaaw gi yaakaar naa ne ku nekk mën nga exprimer wu noo ko yëgee. Mm-hmm. sëriñ beeg ak kenn laaj bu amul moroom ak yooyu waaye dama jàpp ne daal fi mu toll lii. Mm-hmm. lu sérieux la. Euh, du benn photo su fekkoon benn photo rek sax mën nañ ne. ah euh, lii comme yeneen yi waaye lii album la mu am plus de cinq photos mu am contexte boo xam te am taarix bu ànd ak moom. Mhm. moom lu ñu nattee ci ay téere sëñ du Lamine Diop Dagana mooy tubaab bii nga xamante ne Joffre mii nga xam ne sax ñaari weer bala balaa balaa balaa balaa tegu xeeru jumaa ji gis ngeen ne am na beneen photo boo xamante ne dafa mel ne photo de famille la wala euh, ñoom ñi bokk liggéey gis nga ne defaat nañ ko mooy boobu janvier la mhm. kon yooyu yëpp nañ ko xam ne daal du du lu ndaw ñu topp ko te te bañ a tëj buntu buntu buntu yi. Mhm. message boobu daal moon laa doon gën a. lancé. Mhm. xam ne mënu neen bañ a ay quarante deux mille euros yi ñuy wax yeggul quatre cent mille euros. Mhm. quarante mille euros. la yem. am na ci ñoo xamante ne ñoom demoon neen ba quarante mille euros yoroon neen ko ñoom naroon neen ko jël. jébbal ko sëriñ bi. kon ñi ko xamante ne yàlla wërsëgulu leen ko. ñu xam ne du ay fo. du dugg rek di dugal pour mu jëm ci kaw. Mhm. loolu daal moom laa ne woon lu ma lu ma soxal la. Mhm. ñu liggéey ci xëy na waa daayira Belgique bi ñoom bëgg a fàllu. Mhm. Euh, xëy na ñu ngi ñuy dégg. ak ñoom ñoo ñu nekk fa di ay murid yu Pastefu. Ah, ñoo leen fexe xool ah ñoom professeur ñëpp mën nañ koo kii professeur Galaye Ndiaye. waa professeur Diallaye Ndiaye ñoom ñëpp. ok ñu ngi doon nañ leen jéem a contacter. Mm. ñu ñu ñu ñu liggéey ci loolu. dina ko dugalaat suba wala ci dans la semaine. waaw comme ñu bëgg yow waxoo ñu fan nga fan mooy sa position ci photo bi. sëñ bëgg waaw man na <laughs> <laughs> waaw léegi nag la. Ah. pour bañ a gàttal xam ne. Ah. man ak ñeneen ñi rek ñu wax leer la <laughs> ñu a moom moom na moom yaakaar naa man ak ñëpp ñoo ci. dalaa bëgg dugal waaye li nga wax leer na dalaa bëgg a dugal rek waaye li nga wax leer na ba léegi nag dama doon dama ci dégg a guddal jaajëf bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ñeneen ñi doxal xam naa ñëpp daal bokk fu ñu jëm jërëjëf jërëjëf chef bi ok baax na jërëjëf ñu ngi bon bon bon ndogu ñu ngi lay <laughs> ñaanal ndogu jàmm dégg naa nag eh, soxna soxna nee na ma ah. maanaam ceeb daal moo ko ñor lool tubaarkàlla ah. waaye terewul <laughs> maa ngi lay sëñ Jibril beneen ah. eh, jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Mor Dagg si la ñu ngi koy mm-hmm. sant ko gërëm mi ngi en ligne ak euh, Mathieu mi nga xam ne moo génnee photo yi. Mm-hmm. Euh, mi ngi def sax ay pexe parce que nee na mi ngi suivre tele bi ci YouTube bi. Mm-hmm. mais dafa déggul olof.